son clandestine bi lu métti la vraiment c'est triste ce qui se passe léegi gars yi ñu ngi wax air euh, air Nicaragua justement xam nga loolu ndeysaan ñàkk xam ñàkk am information mooy waral loolu wala pauvreté mooy def loolu la plupart des cas loolu tamit suñu affaire la ñun ñëpp ñu ngi xool yan pexe loolu mooy journée bi loolu moo tax ñu indi ñu xarañ tey ñu waxtaan yan mooy pexe yu ñu nga xam ne dinañ ko tënk woon ko état bi woon ko partenaires yi woon ko tous les bonnes volontés comment ensemble lutter contre l'immigration clandestine loolu mooy affaire bi ko ngi lancer appel à l'État aux personnes privées aux ONG à tout le monde pour ñu jàppale ñu ci financement bi ñu mun a wéyal lu ñu bëgg a def ndax lu ñuy def mission d'intérêt national développement la jeunesse la ñu ngi xeex immigration clandestine ak leneen ak leneen.